faire nos forces te une histoire lui a donné raison élection élection élection élection libéré libéré libéré sama gars yi dama kontaan ci jeunesse sénégalaise te nous avons en face de nous une jeunesse consciente te président lu mu bëgg duñu ko nangu mais doo bàyyi ba liste génn nga ne réconciliation loolu dafa am lu muy nuru bu nga jéppee rek nga ne réconciliation wala dialogue loolu duñ ko nangu Macky Sall aw ci biti Macky Sall aw ci biti Macky Sall aw ci biti vive la liberté vive le Sénégal vive la jeunesse sénégalaise merci beaucoup Yaya Samb nee na Sonko nee na Macky Sall na wutal boppam na dialogue ak boppam Macky Sall na baara yëgoo ak boppam Ousmane Sonko Bassirou Diomaye ak détenu politique yëpp ñu ngi leen di masaw ñu ngi leen di wax ñu génn ñun lu nekk Macky Sall def nañu ko yaay bu nekk jooy suñuy doom dee nañu waaye dañ ko doon nege bis dañ cinq février xiif nañu ñu di ko nege le vingt cinq février mar nañu ñu di ko nege le vingt cinq février ñàkk nañu justice ñu di ko nege le vingt cinq février waaw bu le vingt cinq février jotee ñu ne ñu amul leen ci droit lan ngeen feebar kenn waratu la taayal na ñëpp jóg na ñëpp jóg ñu wax ni Macky Sall du fi amee du fi amee il faut que élection élection élection élection élection bu ñu perdre le temps bu ñu perdre le temps léegi rek laay dénku ñi ñuy wax folie ñii ñu retenir dañ di leen xeexal buñ leen xas parce que Macky Sall tas na këru diine yi bi tas na ku bokk nawet baay tas na ay frères tas na les les journalistes yi kon nag bu ñu xaajale ñun opposition bi nañu dëgër te xam ne ñoo bokk lu ñu bëgg lu ñu bëgg mooy askan wi benn baat la am benn baat la doon xaar muy baatu wote. ci suñu biir ku nekk na jàpp ne moromam nawle bi maa ngi leen di gërëm di leen sant bii mooy FM4 bii mooy FM4 FM4 FM4. président yoo taam yi le 2 avril ci ngay joxe la ngay da nga war a organiser élection dem Pada Wiri Wiri Pada Wiri Wiri daali dem daali le 2 avril ñu fal suñu président bu bees démocratie bi taxawaat monsieur le président amnistie boo xam ne da nga bëgg a farankulaayu ci